الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jall di wattalikuloo suñu bopp di leen wattalikuloo bët ay tereen mbokk yi suñu xutba tey dafay jëm ci benn aaya ci alquran boo xam ne alquran lépp moo ci gën a màgg aaya boo xam ne war na jullit bu nekk mu di ko ngànnaayoo waxtu wu nekk aaya boo xam ne euh, ay xadis yu bari rot na ci ngëneelam ak màgg bu màgg ak aajowoo boo xamante ni bi jullit bi aaja na aajo boobu seyduna abu hurayra radiallahu anhu dafay nettali ab xew-xew boo xam ne moom la gaaroon nee na sallallahu alayhi wa sallam bis da koo jox digal ngir mu wattu azakay mbirum koor yi nga xam ne dañ koo dajale euh, sallallahu alayhi wa sallam digalu ko mu wattu ko nee na ma di ko wattu guddi bis guddi jot jenn waay ñëw di tibb di ci tibb ma jàpp ko poñe ko ne ko danaa la kalaame ak yonente bi mu ne ma dimbale ma damaa ñàkk ami yitte ci amul njaboot abu hurayra dee na ma yërëm ko daat koy bàyyi ba ma xëyee suba sallallahu alayhi wa sallam ne ma na nga def ak sa ganu biig gi ma ne ko moom da def ma jàmbat ak ñàkk ak njaboot bu bari ma yërëm ko bàyyi mu ne ma moom de lam la wax du dëgg day fenn dana del siwaat nee na ma xam ne ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam moo ne dana del siwaat kon dana del siwaat guddi jotaat waa ñëwaat tàmbali si diggu ca alal joojee ma pañewaat ko ne ko danaa la kalaame tey jii ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu wax ma lam ma waxoon na ma dimbale ma damay boroomu njaboot ñàkk nee na ma yërëm ko bàyyi ko ma xëyaat sama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma na nga def ak sa ganut bii gi ma nekk ko moom ne daf maa lay ak ñàkk ak njaboot ma yërëm ko bàyyi ko mu ne ma day fende dana del siwaat bisub ñetteel ba nag ma di ko xaar ba mu ñëwee tey nee na ma ja di tibb ma jàpp ko poñe ko ne ko tey jii de moom mënoo fexe ba du bala kalaam ak yonent bi bii mooy sa ñetteel yoon mu ne ma dimbale ma nga bàyyi ma rek danaa la wax euh, menn mbir moo xam ne soo ko defee yàlla dana la ci jariñ ma ne ko loolu mu dema saa yu gudd jotee ba tëdd jot ba nga wéeru sa kaw ab lal na nga jàng ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum nee na nga jàng ko ba mu jeex soo ko defee sunu boroom dafay yebal am malaaka moo xam daf lay sàmm dara dara du la gaar ci guddi gi nee na ma daat koy bàyyi ma xëyaat sallallahu alayhi wa sallam ne ma noo def sa ganub biig gi ma ne ko moom da def ne ma dafa may jàngal loo xam ne ay baat la su ma ko waxee suñu borom dana ma ci jëriñ sàmm ma mu ne ko baat yooyu mu la wax yu door mu ne ko ayatul kursi yu la ma wax ne su ma demee bay tëdd danaa ko naa ko jàng su ma ko jàngee suñu boroom daf may sàmm wala dafay yebal ko ba sàmm ba bët set dara duma laal mu ne ma tey de lam la wax dëgg la waaye ba tey ab fenkat la daal na ma ndax xam nga ki nga doon waxanteel fan yëpp Abu Hurayra ma ko déedéet mu ne ma seytaane de moom nga doon waxal kon ayatul kursi mooy sangi aaya alquran yëpp moo gën a màgg ci alquran euh, bi sallallahu alayhi wa laaj na euh, ubay ibn kaab ne ko ndax xam nga li nga jàng ci alquran ban aaya moo ci gën a màgg mu ne ko allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum mu daal di jël ab loxoom def ko ci dënnam ne ko jàppal bu baax xam-xam a ngi noonu yaa abaa manzir euh, aayatul kursi yu mbokk yi aaya la bu màgg boo xam ne waxtu guddi la wàcc sallallahu alayhi wa sallam woo benn saxaabu ñu wax Zayd mu bind ko Euh, mu bari ay ngëneel lool jàng ko waxtu wu nekk rawatina suba ak ngoon ci nit ki ni mu koy sàmmee ak ni mu koy aare ak tamit jàng ko la njëkk ngay tëdd waaye tamit jàng ko ginnaaw boo jullee farata ko ba noppi sax na ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo jullee ba noppi daf say baaqiyaatu saalihaat jàng ayatul kursi ba jeex lenn mënu laa tee tàbbi nga day faatu kon aaya bu màgg a ngi noonu aaya bi dafa làmboo màggal yàlla ak wéetal ko ndax dafa tàmbalee ci tur bi nga xam ne saa yoo ko déggee wala saa yu nga waxee sa xel du nekk ci kenn ku dul yàlla allah allah mu teg ci laa ilaha illa buur amul ku dul moom boo xam ne yeyoon a jaamu mooy alxayyul qayyuum kii dund dund gu mat goo xam ne gu mat sëkk la amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam moo jëkk moo ji moo mujj mooy ki nga xam ne moo saytu lépp moo koy saytu moo koy absorbé amul lenn loo xam ne dana ko fàddu yudabbiru al amra min alsamaai ila al ard lépp mi ngi ci xam ak sunu borom ak gisam mi ngi gis lépp mi def yépp aajowoo ci moom sa moom aajowoo ci kenn mooy koo xam ne bu ñëpp taxawee ci ay mbiram bu boobaa la ay mbiram di gën a dox ca comme taxaw ci say mbir say mbir taxaw ba faw mooy alqayyum kooku nag du mën a nelaw moo tax mu ne laa taaxuduhu sinatun wala nawm inna allaha yumsiku samawati wal ardi an taqaa ala al ardi illa bi idnihi faneen mu ne wa yumsiku samaa an taqaa ala al ardi illa bi idnihi suñu borom moo téye asamaan ak suuf ba du wàcc ci kaw suuf moo téye asamaan ba du wàcc ci kaw suuf bu nelawoon jayaxu rek asamaan wàcc mbindeef yi nekk ci suuf faatu moo tax mu ne kooku du nelaw mukk laa taaxuduhu sinatun wala nawm mooy ki nga xam ne lépp ci loxoom la nekk muy tey ak ëllëg ba ëllëg yomal xiyaam yonent yi ngay dégg ak nitu yàlla yi wàllu yi malaaka yi kero bu mbir ma taree ba jàqare da daj kapp maanaam mbindeef yi amul kenn kuy sañ a jóg di tiilu kenn di mu kenn dale suñu borom jox la digal man da alladi yashfau indahu illa bi idnihi wa kam min malakin fi samawat laa tugni shafaatuhum shay'an illa min baadi an yaadana allah naam ramb am na danañu ramb yonent yi dañu ramb nit yàlla dañu ramb waaye nag ku yàlla jox ndigal mu ramb wala yashfauuna illa liman irtada ca kookee tamit ñuy ramb ku yàlla gërëm ñu ramb ko kon lahu ma fi samawati wa ma fi ard kooku mooy borom bi nga xam ne nguuram amul ci lu ñuy xëccoo ak moom mooy dundal ak rey mooy joxe mooy xañe mooy yëkkati nit moo koy suufeel lu waay am moo la ko jox lu waay ñàkk moo la ko xañ loolu pas-pas boobu bu nekkee ci ab day noppalu bu baax a baax pas-pas boobu mooy pas-pas bi war a nekk ci bépp jullit waaye pas-pas la loo xam ne pas-pas la boo xam ne ku mu nekk ci yow euh, da nga yëg ak raaxa ak noflaay yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum mooy xam na seen mbir yépp xam seen démb xam seen suba kenn ku nekk la ngay xam ëllëg la ngay la ngay am ëllëg xam na ko kenn ku nekk la njëkk ngay ñëw ba ba nga fi jógee lay xew sa ginnaaw lépp xam na ko amul kon loo xamante ni bi xam-xamu suñu borom ak gucce axaata bi kulli shay'in ilma kooku nga xam ne mooy as-sami'ul basir mu ñaari aay yoo xam ne wala ñaari baat yoo xam ne bépp jullit boo xam ne bàyyi na ko xel ne faw mu ragal yàlla du mën a def lu neexul yàlla assamii loo wax mu dégg albasir loo def mu gis kon boo dee def xam ne mi ngi lay gis walla ngay wax bàyyi ne mi ngi lay dégg da nga bàyyi xel ci li ngay wax ak li ngay jëf ànd nga xam-xamam boobu mu wax ne amul ci lenn loo xamante ni bi mbiram la moo xam ne doomu aadama wala mbindeef mën na koo xam ci lu dul mu sol ko wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi bi ma shaa doon boo xam ne ku màgg la ku rëyu nguur koo xam ne seesam ba ëpp na asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ca lépp la saytu amul fenn fu koy rëcc amul fenn loo xamante ni bi dana ko réer fenn sallallahu alayhi wa sallam wax na nee na asamaane juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar soo leen comparé ak kursi yi dafa mel ne ab jaaro boo jël sànni ko ci ak mbooy ni mbooy gi ëppee jaaro bi noonu la kursi yu ëppee asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar waaye tamit kursi yu loolu muy rëy rëy rëy rëy la ko arsh ëppee ni ak jaaro ni am ni am mbooy boo jël maanaam jaaro boo ci sànni ko ci ak mbooy ni nga xam ne noonu la ëppee mbooy gi noonu la ko ëppee noonu la arsu ëppee tamit kursi yi naka la nag borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo leen bind mi nga xam ne moo leen di saytu mi nga xam ne lépp lu fi xaw mi ngi koy xam di ko di kon mu teg ci wa huwa al aliyu al mooy buur bu màgg bi bi nga xam ne bu kawe la kawe ci jëmm kawe ci mbir nga xam ne kenn wala lenn du melul ne moom kooku lees di war a jaabu kooku lees di war a joyal ay mbir jëme ci moom kooku lees di war a wéeru moom lañu war a dimbali koo aayatul kursiyu dafay aaya boo xam ne kon bu màgg la ci gàttal loolu mooy li mu làmboo ci wàllu tawxid nga xam ne làmboo na tawxidul uluhiya làmboo ak tawxidul rububiya làmboo ak tawxidul sifaat looloo tax mu doon bi gën a màgg ci alquran doon kiiraay boo xam ne nit ki mënut a am beneen kiiraay bu gën a màgg aayatul lenn looy di ko di ko aare sa bopp wala di ko aare sa ngemoon wala di ko aare sa alal lu gën a màgg ayatul kursi yu amut moo tax sallallahu alayhi bi abi hurayra ñëwee ci yoonu ñetteel mu ne ko ama innahu qad saddaqaka wa huwa kon ayatul kursi yi mi ngi noonu mbokk yi dees na ko jàng waxtu wuy tëdd ngir di ko liimaayoo des na ko jàng waxtu woo jullee ba noppi des na ko jàng suba ak ngoon des na ko jàng ngir musuloo ci lépp yàlla yàlla defal dégg ak topp yàlla yàlla sàmm te sàmm suñu njaboot yàlla yàlla defal dégg ak topp yàlla yàlla def ñu ay jaam ñu mu xittal ci ñu jaamu ko te mu nangu leen seen jaamu te xarulal aljanna wa axiru daawaana alhamdulilah rabbil alamin